baax a baax ñu ngi leen di dalal jàmm seen yéen téléspectateur Equivox TV di leen dalal jàmm ci seen euh, journal euh, de l'arène ma ciy ànd toujours ak kii di euh, l'incontournable Babacar <laughs> Babacar nuyu naa la. maa ngi lay fay soxna Oulimata c'est que tur boobu dafa xaw a tur bi mu attribué. ah man de moom laa sentir Babacar. ah waaw moom nga sentir leen de moom lu mu sentir wax ko moom mooy mais nag dañ la koy nangu rek mais bon ñun moom ay taalibe lañ jàpp suñu bopp mais maa ngi lay fay tamit di leen nuyu di nuyu téléspectateur Equivox TV yëpp vraiment di kontaan ci. am jàkkaarloo ak yow wala bokk làkk ak yow di moins. maa la gën a kontaan Babacar ñu dem seetaani ji revue des titres te ñëwaat. asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum wa rahmatulah jeudi 18 mars dañ ñëw ak yéen ci yëglikaay suñu lamb la xëy dooreeti ko. mu mel ni ki bi di sunu làmb tey fa mu xëy génn fenn la maanaam ka nga xam ne nii moom moo di Modou Lo ci xët mu njëkk moo ca nekk le roi des arènes ka nga xam ne nag moo xëy di wax mooy ka nga xam ne moom mooy président écurie ba nga xam ne fa la nekk di Rock Énergie mooy kan Xaarim Gajaga Xaarim nag moom la mu xëy wax daal maanaam dafa yuuxu ba baatam sës la mu xëy di yuuxu nag lenn la dana fi mu nekk nii ñoom lenn daal la ñu gis bëree dong la ñu gis maanaam dañoo bëgg seen combat ñu bëree te fi mu nekk nii moom xaar bi ci bopp boppam sax manatuñ ko te jàpp na ne tamit fi mu nekk nii bëri lañ war a def yemu ca moom xaadim jàpp na ne tamit ki nga xam ne moom moo tëgg seen combat di Luc Nicolaï fi mu nekk nii mu ca ay lég ay réglages yoo xam ne daal ngir fexe komba bi am ci at mii nga xam ne ca la nu ne waaye yemu ca nag moom xaadim Gadiaga ndax jàpp na ni Modou Lo moom victoire la xeef fi mu nekk nii waaye ka nga xam ne nag ca moom la war a bëree wala moom la war a bëril moom muy Ama Baldé ak ki nga xam ne mooy xaarim daal nëbbul ay waxam nekku fa di dem gos wala droite déedéet dafa jubal ca moom direct xaarim daal ne na li ko leer ba leer moom mooy leer na ko ne kii nga xam ne moom moo di Modou Lo moom di mbërëm day daan Ama Baldé jël bu leer nañ xaadim ñu ne ko déet xaadim ne lii moom maa ko wax na leer muuduloo moom leer na ko ne wala Ama itam leer na ko ne daal moom combat bi da koy ñàkk defet donc la ci mën a jëlee maanaam Modou da koy daan keneen koo xam ne doomi parcelle la yëglikaay bi xëy na tey ñëw ci moom ci combat bi nga xam ne fiasco lañ ko tudde ndax ñëpp noonu nañu combat ba day taxaw muy Garga Mbossé ak Sa Moussa Ndoye ka nga xam ne nag moom moo di góor a Diagne moom xëy na tey ñëw di wax jàpp na ne daal combat ba moom li ko yàq daa jàpp ne lenn kese kese la maanaam maanaam daal laaj loo xam ne lu mënta nekkal wala boog lu ëpp wala boog loo xam ne daal laajees na ko te promoteur ba d'accordu ko parce que Garga Mbossé góor a jaañay wax de naan 30 million la doon laaj ka nga xam ne moo di Gaston te Gaston jamono jooja moom la mu mënoon maanaam daal mooy vingt cinq million ngir jox ko ngir mu bëre ak Sa moo tax daal ñu jàpp ne daal gar Garga moom soo bëggee dégg dëgg moom ay mbiram fi mu nekk nii jaxasoo def na ko sunu làmb moo xëy ñëw tey di wax loolu kii moom am na combat ba jàpp datam muy Adama Sané le 11 avril daal yëglikaay bi ne na ca la fas yéene tëgg nag Tigre Junior ak ka nga xam ne nii moom moo di booy Melax loolu yëglikaay bi di sunu làmb moo xëy tey ñëw di nu wax lu mel ne ki noonu waaye yemuñu ca de ba tey bu nu continuer ba tey beneen combat boo xam ne tamit yëglikaay bi xëy na tey wax ñu ko huitième édition wala huitième édition drapeau soxna na fi fàllu fàll mu war dox ci diggante ki nga xam ne ni moom di Boy Melax ak B52 Junior yëglikaay bi xëy na tey wax nu ko mel ne ki loola moom le 28 mars lay am loolu sunu làmb moo xëy ñëw tey di nu wax lu mel ni ki noonu ñeneen ñoo xam ne nii moom bu combat am ñoo ko war a soufflé yëgle kam na nañ def ndànk de ndax buñ sàgganee arbitre ya danañ dellu ci beneen greffe boo xam ne daal ci saison 2021 bi beneen greffe daal boo sàgganee mën nañ caa delluwaat sunu làmb moo xëy ñëw tey di wax lu mel ni ki noonu foo xam ne moom dañ fay dem muy Kaolack maanaam Saalum ka nga xam ne nii nag moom moo di maam koor fay daal tey jii moom la nu koy jox ba nga ba nga xam ne ni ca la war a toog jiite lambi Kaolack muy CRC ba kam ko war a jëqal nag mooy biraseen ma nga xam ne moo fa nekkoon loolu nag yëglikaay bi xëy na nu xamal ne daal tey ci alxames ji lay am ca gouvernance ba nga xam ne nii moom moo nekk ca Kaolack ci teewaayu ka nga xam ne mooy gouverneur Kaolack yëglikaay bi xëy na tey dikkal ñu ci loolu moom sunu làmb leneen loo xam ne yëglikaay bi xëy na tey ñëw ci moom sunu làmb mel ni làmb simple ja itam yëglikaay bi fàttewu ko ak ka nga xam ne moom moo di Pape Say ma nga xam ne daal la mu fas yéenee def lenn la le 27 jàpp le 28 mars fa nga xam ne moo di ca sawaal 1 million 500 daal la fa fas yéenee teg ngir la nga xam ne moo di bëre simple bi maanaam daal loolu la fas yéenee def fa nga xam ne moom moo di Joal sunu làmb xëy ñëw tey dina ko wax keneen koo xam ne ba tey lamb simple ja moom kenn demul mu des ca muy jàk sama nga xam ne yàgg na caa joxe ay millions yu baree bare mu mel ni génneeti na ay millions deux millions cinq cent daal la tegati ca taabal ja loolu nag lim ci nar mooy dimanche ji ñu jëm di la 21 mars daal ca terrain gaal gi daal jàk si confirmé na galaa ba nga xam ne moom la fa fas yéenee def mel ni que daal fi mu nii kon bu bëggee dégg dëgg moom jàk moom pare na ngir dimaas nag képp koo xam ne dangaa namoon lambi simple nekk ci ndakaaru wala li ko wër wala ci Sénégal boo yeboo nga takk say dal jubal si fa nga xam ne moom moo di terrain gaal gi ndax jag si ne na deux millions cinq cent moom da ko fay teg ñu bëree te wayya di bu bëggee dégg-dégg yëglikaay bi ñëw na ca de di yore soog daal la ko yëglikaay bi tudde muy mbayang luum ak ka nga xam ne moom moo di Momo Ngom bu ñu jógee sunu làmb dañuy dem fa nga xam ne nii moom moo di ca journal record record moom la mu xëy ñëwati mooy date bi nga xam ne mooy la 4 avril war a dox ci diggante Lac de Guiers numéro 2 ak nga xam ne moo di Eumeu Sène mel ni ki yëglikaay ba daal ñëw na ca ñaari mbër yi ak la nga xam ne nii daal mooy seen combat boobu nga xam ne war nañ ko séq te Gaston Mbengue jaar fa yëglikaay bi ba tey ñëwaat na moom yëglikaay bi di record ci jax ma nga xam ne daal maanaam war naa ñëw dimanche ji nu jëm fa nga xam ne moom moo di ca terrain gaal gi ak deux millions cinq cent mille mel ni ki record mu ngi xam ne nga xam ne daal moom la su war a def ngir mën am licence bi mu nekk nii loolu lépp yëglikaay bi ñëw na ci kii moom condition ya nga xam ne nii moom moo ko war a may mu daan ka nga xam ne moom lay jàmmandoor ci wàllum MMA muy Bombardier mu nga ca gis nañ ko mook box mook mook entraîneur ba ñu xëy daal di laalante box di yeeyol di yee la nga xam ne moom moo di loxo ya mu nekk nag Bombardier kon fi mu nekk nii daal mu nga ci réewum Pologne di waajal nag kombaam waaye yemu ca de ndax ambassadeur ba nga xam ne moom moo nekk ca Pologne dalal nag ka nga xam ne nii moom moo di Bombardier buñ fa jógee dañuy dem Equivox lan fay fekk mooy ka nga xam ne moom moo di moor nga muy tëggal ëmma seet moor daal la mu xamle daal nee na incha allahu rabbi daal bu ñu yeggee ci la 4 avril moom maanaam ndox du bàyyi yoonam fa mu daan jaar ak ëmma seen fa ko gën a neex lay jaar ak moom te gëm na ne mbërëm bu keroogee itam ndam da ko koy indil ndax nag nee na ma xam naa ko te itam nag yàgg naa koo tëggal te itam ba mu commencé tëggal ba tey dara ñaawut lépp a ngi rafet lool waxi Mor Ngom la fa nga xam ne moo di ca Equivox TV nekkoon donc euh, suñu revue des titres euh, ñu doon ko présenté ak euh, kii di Babacar Babacar tey nag dañuy démarré waat rek dooraat ko ak suñu làmb comme niñ ko niñ koy faral di defee donc tey moom suñu làmb dafa xëy affiché à la une ne Khadim Gadiaga hausse le ton Modou Lo va battre Ama Baldé kii di président bu Rock Énergie bu mel ni am na kóolute bu baax a baax ci kii di Modou Lo. waaw ah waaw loolu parce que Khadim Gadiaga moom mooy président écurie bi ba am daa nekkoon na fu mbër daan bëri nekk nag ñu muutloo ñu nekk ay rakkam ba tey mu bàyyi bëri nekk président Rock Énergie defe naa tey su xëyee waxee noonu ah defe naa ne mooy li ma la wax rek boo si jëmee moom mhm. da ngay wax ne man maay gañe xare bi mhm. doo wax mukk ne dañ may daan mhm. yaa ngi dégg waaye nag defe naa ne lii leer balaay leer rek yaar bi dafay soufflé génn seen diggante su geroogee moom dañu xam kan mooy daan mais xaar ah, tellement li ne ci mbërëm wala li mu gëm te di ko liggéey ak mbërëm te gëm ko te mu nekk ci foofu lay waxee. Mhm, nit nag suy waxee foofu moom. Mhm. dañ koy comprendre. Mhm. waaye xam naa daal am nañu combat bu diis a diis muy suñu diggante ak Ama Balde. a diis muy diggante ma ki nga xam ne moom mooy Modou Lo. dëgg la mu mel ni donc ku nekk am nga droit daal wóolu. Ah, ka nga xam ne moom ngay entraîner wala ka nga xam ne moom nga kii. parce que moom nga xam ci li mu nekk quoi. dëgg la euh, dañuy daal di dikk ak euh, kii di góor Gora Diagne mu ne Garga a exigé 30 millions à Gaston Berger te Gaston. il a proposé vingt cinq il en a proposé vingt cinq millions. Gaston Berger mu nga Saint-Louis Gaston Mbengue la. Gaston Gaston Mbengue <laughs> université la Gaston Mbengue. moo la rey. Gaston Mbengue est-ce que woo fa sax. waaw jàngi woo ma fa waaye daf ma jege. ok loolu la parce que foofu nga dëkk. <laughs> macha allah mu mel ni kon boobu combat xay na Garga ak Sa Thiès yëpp noonu xalaat mooy taxaw. Mhm. mais par la suite dañu dégg Moussa ak Sa Thiès. Mhm. ah tey nag Gora Diagne mu xëy di leeral. Mhm. li tax combat bi yàqu li di problème. problème bi jàpp na ni mbër mi nga mooy Garga moo doon laaj Gaston 30 millions te Gaston 25 la ko mën a fay ah loolu nag mu làmba ànd mbër moom dinañ ko ne mille lañ la mën a fay mu ne man 2000 laay bëri ñu waxtaan bu ñu jéggiwul tamit promoteur bi day wëri leneen mbër ma wëri leneen rek comme Gaston am na leneen Garga tamit ñu ngi ko mu am leneen waaye xam naa daal ah diggante 30 ak 25 millions xalaat naa bu ñu waxtaanu dëgg dëgg dëgg mën na am ñu daje quoi ah waaw tey ñoo waxtaan ah waxtaan ma passé na parce que Gaston jox na combat bi keneen. joxe na ko ba pare waaw dañuy daal di dikk kon ci combat kii di diggante euh, kii di euh, Tigre Junior ak booy jaax jaxaw Adama Sané retient le 11 avril mooy promoteur ba. waaw Adama Sané moo tëgg ay combat yaakaar naa ne ci diggante ki nga xam ne moom mooy Boy Melax la ba tey wala Tigre Junior. Mhm. ak euh, Boy 50 ak yooyu muy combat yoo xam ne daal. moom jàpp na pour le 11 avril. Mhm. yaa ngi dégg ba tamit gis nañ fi le 28 mars loolu yëpp di ay yoo xam ne ni daal mhm. ay combat yoo ne ñu koy xaar mhm. loolu moo lay wan ne daal fi mu nekk nii soo bëggee dégg-dëgg Oulimata. ji démarré na daal. <laughs> Euh, kii di euh, lii di saison euh, bu 2020 2021 itam mu mel ni am na leneen lu ci lu ci nar a xew Babacar. vers une nouvelle grève des arbitres la sunu lamb wax loo ñuy loolu yàlla bu mu am. arbitre yi daal nañu fexe. déggoo ak CNC bi leen jiite. ba nga xam ne dinañ mën a arbitrer làmb ji parce que làmb tamit doo jël benn Babacar rek ne ko kaay arbitrer ba Modou Lo ak nga xam mooy Ama wala la dagee rek ki nga xam ne moom mooy Eumeu Sène parce que arbitrage. ci làmb pour man lu ñu lay former la jàngal la ko ba nga maîtriser texte yi lépp ak règle yi doog ko mën a def kon defe naa greffe moom nañu fexe ba li amoon bañ a amaat te defe naa loolu Bira Sène du ko seetal ak équipe am dëgg la dëgg la yàlla bu mu am donc Babacar euh, dañuy daal di euh, ñëw ci lii di euh, mise de 2,5 millions à Galgui donc mu mel ni terrain gi Euh, kii di Jax confirmé na son gala ce dimanche de 21 ce dimanche 21 mars. waaw loolu moom mooy dimanche prochain incha allah rabbi mhm. Jax mu mel ni ñaa doon laam-laam ndax dina ko tëgg wala du ko tëgg yooyu mais moom ci boppam. Mhm. wax na ne da koy tëgg wax na ko tey suñu làmb. Mhm. démb tamit na ma ne daal. incha allah rabbi dimanche prochain moom 2 millions 500 yi moom dina ko teg fi nga xam ne moom mooy terrain gaal gi. waaw 2 millions 500 yi dina am ku ko yóbbu daal. bien sûr nii rek. da ngaa pare tamit bu <laughs> kii di Pape Thialis Faye moom it. Pape Thialis Faye Pape Thialis Faye ay man. maa du ñu dóor waaw Pape Thialis Faye ah, moom misé na 1 million 500 mille francs moom it fële ca Joal ah. waaw le 27 ak le 28 mars. Mm. mooy beneen. weekend ba waaw loolu tamit ba tey moo lay wane li simple gars yi fàttewuñ ko ah uh-huh. Pape Thialis Faye defe naa bu tamit def loolu def na lu am solo rek comme uh-huh. Jax defe naa ne ñoom tamit ñu ngi dundal làmb en ah, promoteur yi ñu ngi uh-huh. tëgg simple di tëgg frappe te loolu lu am solo la muy loo xam ne tamit deux millions un million cinq cent à Joal le 27 le loolu tamit yàlla nañ ko fekk tal ko rek amiin yaa rabbi lu neex li simple bi waaw ayca <laughs> Babacar mu dafa xëy ne euh, choc de la réconciliation ëmm l'acte 2 le coup du le Gaston loo ñuy euh, développé ci loolu loo ñuy expliqué. choc de la réconciliation def naa mooy choc buy dajale. buy dajale buy jubóole mm-hmm. waaw jubóo moom moom moo gën dëngoo. parce que jàmm a tax te bu dëngoo amee jàmm dul am kon bu rek soog buy buy tax nit ñi déggoo la wala luy tax nit ñi juboo la ah vraiment kon dañ naan daal alhamdulilah parce que làmb moom yàgg naa defar diggante yu yàq parce que li tax mooy la nga cay jëlee ak ña nga cay dajale ak na nga koy dundee kon yaakaar naa daal la 4 avril boobu moom comme noonu ko sunu wala noonu noonu ko record tudde moom. Mhm. ah yal na demee noonu daal. amiin amiin yaa rabbi Babacar. Mhm. bu ñu fa jógee euh, daal di jeexale ak kii di Bombardier ñu ne moom il quitte Varsovie ce jeudi pour Łódź. Euh, waaw maanaam daal kon fi mu ne boo bëggee dégg mu nga ci digg mu nga biir Pologne di wër fu muy dal. pour mën a préparer mhm. pour combat ñu koy ñaanal yàlla ndam parce que ref actuellement yegg na. ndax démb jot naa ay vidéo ak ay photos yoo xam ne fi mu nekk entraîneur am ak ay encadreur mhm. di préparer li nga xam ne ni moom moo war a dox ci digganteem ak ka nga xam ne moom mooy coach Sunuski yàlla na ci am ndam nag amin yaa rabbi mhm. amin yaa rabbi mhm. euh, bu ko defee record itam euh, maa ngi jégaluwaat du élément bi mujj ci record li kii di euh, CRG ki jiite CRG bu Kaolack mu mel ni moom it record wax na ci donc day ji dañuy def passation de service maanaam dafay fa mu nekkoon da koy da koy bàyyi jox ko keneen. waaw mooy mooy Bira Sène moom moo jiite woon CNG bu Kaolack te léegi moo jiite làmb Sénégal maanaam muy moom mooy mooy remplace Alioune Sarr di président CNG. Mhm. nag ki nga xam ne moom mooy Mame Kor mhm. moom mooy actuel président bu bees bi. Mhm. te ñu war def kon lu mel ni passation de service ca gouvernance bu Kaolack. ñu war a jébbal lenge yi. ki nga xam ne moom mooy maam Kor Faye ñu koy ñaanal yàlla mu réussir fa lu fa biraa def bi nga la fa fekk mhm. euh, ñu ngi koy ñaanal bu baax moom euh, maam Kor Faye di espérer que ni également dina fa def euh, lu fa lim lim lu biraa lu fa biraa def deful voilà lu mu fa deful ci loolu nag la tàggatoo ak yéen mu doonoon suñu journal de l'arène maa ngi jaajëfal ñëpp Babacar kan ngay nuyu. waa tey moom damay ñëw ci benn xale boo xam ne sama mbokk la. Mhm. waaw parce que ñu dëkk dafa réer. Mhm. waaw doonte Dakar fii la dëkk mais ñoo bokk dëkk Bawol ca ñuy wax Mbomboy. Mhm. xale bi ñu ngi ko waaw dafa ay mbokkam daal. ñu ngi koy wax Baye Moussa Thiaw. depuis 15 jours a ngi mu ngi réer mu ngi dëkk fa nga xam ni moom moo di ca yëmbal yëmbal bi daal yëmbal la dëkk mais vraiment daal boobu ba tey dafa réer Baye Moussa Thiaw moomu ah, am 12 ans fukki fukki at ak ñaar mhm. di doomu Abdou Thiaw ak ki nga xam ne moom mooy Khady Keita ah ma wala ma Khady Keita mooy yaayam mhm. dëkk ca quartier yëmbal nord mhm. yaa quinze jours réer na ñu ñaan yàlla képp ku ko gis rek nga dimbali ay mbokkam woote ci numéro bi nga xam ne moom mooy 77 572 78 34 77 572 78 34. muy Baye Modou Thiaw moo xam ne dafa réer mhm. ñu ñaan yàlla yàlla na ko yàlla feeñal parce que dafa jàngi woon ànd ak ay moromam farfa jaari réer mhm. loolu nag fi la ñuy rek di ñuy ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di wax que xam nga rek fii Equivox la ñëpp dañoo bëgg ñu ñu fi gis seen bopp sañse yu rafet ca Colobane moom ma génn tey fii ma génn si maa ngi koy bëgg bu baax a baax mhm. di la kontaane yow tamit macha allah jërëjëf jërëjëf il est souriant elle est l'argent nag nga ma joxagul mais maa lay bëggee. <laughs> nay ñëw mais nuyul Cheikh Bass ak sëñ Fallou Niang maa ngi koy nuyu. ak Cissé ca Brésil baax a baax jërëjëf euh, di ñaanal rek xale bi réer ah na ko yàlla gisale léegi léegi si gën a gaawee ak ay waajuram. Euh, voilà noonu la ñuy tàggatoo ak yéen di leen nuyu bu baax yéen téléspectateur Equivox TV di gën a kontaan ci yéen saa su ne di nuyu également suñu cadreur bu baax bi di euh, Gomis ak suñu réalisateur bu amul morom bi di sëñ Habib mm-hmm. di leen jox dig daje ëllëg incha allah allah ci beneen journal de l'arène